na nga ko ko yóbbul. na ko ko yóbbul. mu ngi door a jot. mu ngi door eh, wu njëkk wi. te ci des. li nga bàyyee ko ko. nga bàyyee ko ko moom bu ko moom bu ko jàngee. dana xam ne maa ko ko bind. dana xam ne moo ko ko lu jógee ci man dugg ko. te dana am moom dugg ko. way eh, weer wi eh, way wi lu ci wax. way wi mu ne mu ngi ci wax. qultu ma maa ngi wax ne kulli sama lépp. mu karimun sëñ Abdou Karim la. mu ne mu ngi wax ne léppam. Karim la tamoon sëñ Abdou Karim. xon xonq lañ ko bindee. xonq xonq lañ ko bindee. ñu ni sosu ma ko bind ma ko ñëpp xam nañ ko. sosu ko bindu ko te ñëpp xam nañ ko. qultu maa wax man Sëriñ Bamba ne. moo ne moo wax ne. bu ko neexee muy qultu bu ko neexee muy xalatu kulli li Karim. kulli sama lépp. kulli sama lépp. li karimin ñeel na Abdou Karim. li karimin ñeel na jëmm ju tedd lii di Seex Abdou Karim Mbacké. wa baxaa. mu ne wa baxaa. tawbiixu. tawbiixa ikraamin. ikraamin. ikraamin. mooy borom teraanga ju dul jeex. mu ne mooy borom teraanga ju dul jeex. wa qultu ma wax ne. mu ne waaye nag te nan ko ko wanee ne ko Baxin Baxar bi lim tekki ci olof la lim tekki ci olof la. mooy borom baax. mooy borom baax. di joxe baax. di joxe baax. la ca des nag. la ca des nag. yaa koy jàngal sa bopp. mu ne nag ah lii lii lii xol murid yi seddat na teew. si Ahmed xol murid yi seddat na teew. li ngay wax ci sëñ Fallou démb rek may góor a sëy ma koy wax fii ci dëkk bi ci nit jërëjëf kon waaw waaw jërëjëf. mu ne téere bii nag. kibritul ahmar. nga xam ne mooy. kibritul ahmar. bi nga xam ne. bi moom la di ko way xasaay ci Seex Tijaan. nga xam ne. baayam maam Xalifa Ñas moo ko bind di ci way ay xasaayi ci Seydi Ahmed Tidiane Cherif waaye xasida bu njëkk ba ca kaw mu ne waaye xasida bu njëkk ba ca kaw sëñ Tuubaa ci way door a way Cheikh Tidiane sëriñ Tuubaa ci way door way Cheikh Tidiane ko jëbal waaw bii mu ne bii ñu gisaat nii mu téye ci kanamam fi way yónni ci yàlla Muhammad mooy diiwaan ko xoolu jawhar bi mu way Seydina Muhammad téere yi mu ne téere yi mu yëkkati sharia fiqul maliki sharia fiqul maliki moo ci ne moo ci ne fiqu maliki nag mu ne nag daara ji fiqu malik nag junney téere la nga xam ko junney téere la nga xam ko waaye téere yii ma la jox mu ne waaye téere yii mu la téere yooyu tënk xam naa ne te xam na ne suñu baay sëriñ Fallou. suñu baay sëriñ Fallou Mbacke. jamono ji muy def daara ji ci Colobane. jamono ji muy def daara ji la daan jàngale. booba xam-xamam ak sama baay. ak ci Colobane. ci Colobane. ak ngay. ak siñi maanaam. ngay siñi. ak gaynde tafsir. Sadio. ak Sadio. ak Ngaraaf. ak Ngaraaf. ak Kambel. ak Banan. ak euh, Banan. ak Tànni. ak Tànni. ak Buleyeeri. ak Buleyeeri. ak ak euh, ak Mbaayeen. ak Girñel. ak ñëpp ñu ngi fi. ñooñu bo bo booba nag. mu ne ak Bawal. ak Bawal. nga xam ne. nga xam ne. mooy. mooy. Euh, ndindi maanaam. mooy. ak ak ak ndindi googu. mu ne mooy ndindi googu. waaw ndindi arrondissement. ndindi arrondissement. Euh, son baay taalibe mi foofu. mu ne baayam maam xalifa taalibe mi foofu. de son baay ci boppam maam xalifa. mu ne baayam maam xalifa. toolam yi fa ne. toolam yi fa ne. son bu bu ñëwaan. baayam bu ñëwaan. pour suba lañ jàpp tool bi. pour suba lañ ko. Sëriñ Fallou yëg ko. ne wax ne samay taalibe muy taalibe sëñ Fallou. day wax moom sëriñ Fallou ay taalibeem. ne ko bu leen fa bu leen fa taalibe ñeseen yi eh, jëkk kat. ne leen kat bu leen fa taalibe ñeseen yi jëkk. waaw waaw waaye liggéeyam yàlla. waaye liggéeyam yàlla. Eh, Tidiane man sa murit ga gàcce la. Tidiane man sa murit gàcce bu leen fa genn jëkk laa wax. bu leen jëkk laa wax. ku julli fajar na nga dem. ku julli fajar na nga dem. murid yi. murid yi. dem jël seen lamp yi ne seen néeg yi. dem jël seen lamp yi néeg yi. ñëw ci guddi gi. topp guddi gi. di gas tool bi. di gas tool bi di gas tool bi. di gas tool bi. ba bër set. ba bër set tool bi jeex. tool bi jeex ci jaan yi xëy. ci jaan yi xëy fekkuñ fa dara lu ñuy liggéey. fekkuñ fa dara lu ñuy liggéey. fekkuñ fa dara lu ñuy liggéey. kon nag walillahi alhamd. kon nag walillahi alhamd. ñu ngi sant yàlla bu baax. mu ngi tool yi sant yàlla bu baax. di la sant bu baax. nee na yow si sëñ Abdou Karim mu ngi lay sant bu baax. di dox. di dox. tànk jëm si ci yow. tànk jëm si ci yow. jàpp ne. jàpp ne. ki ñu fi baaxoon. ki ñu fi baaxoon. moom lañ fi fekk ba tey. moom lañ fi fekk ba tey. jàpp ne du ngeen ñaar kenn ngeen. mu ne jàpp ne jàpp leen ne du ñaar de Serigne Fall mooy Serigne Abdou Karim Serigne Abdou Karim mooy Serigne Fall. këyit yi leetar bii nag. mu ne leetar bii nag. ah ci li ma gis sëñ bi moo ko bind. ci lu mu gis bi moo ko bind. te wax na ci loo xam ne. man ñeemu moo ko woon a wax te moo waxu ko. moom ko woon wax te moo ko. te daf ko wax ci bind te daf koo wax ci mbind. ma jox la ko nga jàkkaarloo ak moom. mu jox la ko nga jàkkaarloo ak moom. kon nag maqaama boobu parce que dafa wax ne. mu ne na. wëlbatiku di Abdou Kabi Karim. mu ngi nii mooy mbind bi. mu ngi nii. loolu la mbind bi wax. ku jàppoon gën a ku jàppoon gën jàpp. mu ne ku jafandikoo woon ci sëñ Abdou Karim gën ku jàpp ku jàppuloon jàppal. ku jàppuloon ngeen. ku mu raw ku aji tarde arafat tarde arafat yéen a xem yéen a nga màkka waaye allah macha allah am léegi nag nee na nag léegi nag kii tegukaay yi téere moo moo waral mu boole fekkukaayu téere yi. la. mu ne kii julleekaay la. ana wala si. mu ne wala si. kii wax nañ ne ay yére la. mu ne kii wari fi ay yére moo ci ne. ak mbaxana. ak mbaxana. Mm, ak leneen. ak leneen. ay sëñ bi sama doom la Cheikh Omar Mbacke. jërëjëf sëñ bi jërëjëf waaw